président ma Sall jàmm la woote mais le marabout de Sonko man dama yaakaar ne jàmm taxu koo jug président ne nañu woote dialogue waxtaanee réew mi réew mi nekk ci jàmm moom mu ne dialogul te pourtant du moom kese mais gis naa ñenn ci patriotes yi ak ñenn ci waa Pastef fi ñoom d'accorduñ ci dialogue bi. ndax yéen bëgg ngeen jàmmi Sénégal sëriñ bi tey dama la gis nga yor lasper te lasper pour jàmm la ma gis la tamit nga yor aw yat ma dugg si nga ne ma man xeex ma tax a jóg kenn ngay xeexal. fi jamono ji tollu ñu jékki-jékki gis ab livre génn ñu bind ci Jomaay Sonko bind ci les candidats 2024 ndax ñaar ñii danañ bokk ci élection yi tamit lu mat a leeral la dof maam xalifa gëj ngaa génn mais tey bi ma la wooyee téléphone danga ne ma génn am lu ma leeral mais ndax li ngay leeral jàmm lay doon danañ ci duggandi cee leeral mais laata loolu ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi ñu soog a waxtaanee li xew ci. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Mprod ñu ngi jéggalu ci gëj a génn fii ci Mprod site bu mag bi. Euh, alaaji dëgg daaj euh, gis nga jàmm ko ko sàkku yaa koy am ku ko sàkkuwul doo ko am ci kaw ki jiite Sénégal yéen a Sénégal jàmm eh. gis nga <clears throat> dafa am loo xam ni hmm. yàpp askan bi la ak yàpp population Sénégal hmm. ak yàpp kilifa yi ci réew mi ak yàpp ñi nga xam ni wóolu woon nañ la bàyyee la réew mi hmm. imagine toi président Macky Sall waaw. lu yem ni réew mi lu yem ni Sénégal lim ko defal defalu ko benn président bu fi mas a jaar mm-hmm. après l'indépendance nga judd ñu jox la réew mi jox la ko ci anam boo xam ni 2011 réew mi tàngoon lool ñuy lakk ay puno di mars di rey ay nit di tër ay euh, grenade lacrymogène mm-hmm. ñu naan lacrymogène yi fi Abdoulaye Wade indi nii yan lacrymogène la jamono 2011 lañ ko doon dégg léegi jamono boobee mm-hmm. buñ fàttane président Macky Sall kan moo àndoo nag ki nga xam ne mooy Ablaye Wade muy Cheikh ba Thioune ba mu faloo fayoon toog moom tëj ko Sidi Lamine jàppale ko mu fa mu falu tëj ko ki tëj ki àndu àndul ak yow tëj ki ànd ak yow da ba kenn bëgg ne bëggul ab soppeem may ma ba ba pare ki bëggul soppeem bëggul noonam maa ko wax gis lay wax ni yow gis nga réew mi alaaji dégg li ma bëgg ñu xam ko mooy jàmm ñaara koy dox uh-huh. président Macky Sall ci discours am. déglu leen bu baax li may wax. Mhm. wax na ñetti wax yu am solo. nee na après. le 2 avril. dana joxe réew mi. kan la koy jox xamaguñ ko. léegi mu indi article boo xam ne sukkandiku ci ne maanaam bu fekkee balaa boobu élection amul. na ñëpp xam ne président assemblée national la pare pour jox ko réew mi. Ah. mu organiser election moom mu dem yoonam. su fekkee loolu am na ma ngay daw passation de service ba. mooy jomaay lay def ak passation service wala Sonko mooy tànn. lan moo leen leer ne yéenay gagné. alaaji dégg réew mi kenn mënu fee organiser election nekkul ñu ñoo ko gagné loolu mënul ne. mais da nga koo seet ci ramli wala da nga koo seet ci course wala ci biddiw parce que ni nga waxee ni tamit. am na foo ko teg dégg daaj. man maa ngi sant yàlla. Uh-huh. ba may ànd ak Ousmane Sonko. sa sama néegu ñax ba la. Uh-huh. ba may ànd ak Ousmane Sonko. Uh-huh. kenn xamul woon ne dana yegg si fii. loo ko gisee woon ci baatin. bari nañu na comme neex na toog wax Ousmane Sonko wax naa la ko fi waxati la ko fi am na sëriñ yu yu mas a taxaw fii ci tale na usmaan Sonko du bokk Diomaye du bokk nga ñëw fii ma ne la Ousmane ma la Ousmane day bokk ci nii wala day bokk ci naa. ban seet moo la ko waroon jamono Ramli. lan mooy Ramli. Ramli mooy seet tomb yi nga xam ne yonent Yàlla Idris alayhi salaam la ko Jibril jàngaloon ci ko tefes ga. mais alaaji dégg. may ma tuuti rek ma ñamaas wax jikkooy Macky Sall. mais Ramli mooy feeñal lu réer dégg naa. alaaji dégg seet yemewuma cëg min def laa la wax ah. barke yonentu yàlla Muhammad gis nga bëri na ñuy coow ñoo xam ni seeni sëy day yëngu te ay kilifa lañ fii ci réew mi ah. ñu ne ma sëñ bi seetal ma maram liggéey ba xam nit kii maa ngi moom suñu tabiya bokk na ma ne leen yéen nanga kak yéen duggee ci nangam ba par nangam ñu ne ah ñu ne laaj ak sëriñ dañoo gis mu kii rek ñu dugg ci mm-hmm. ree daf may jàpp seet yemoo wuma ci ak mindeef laa la wax barke alquranu karim benn autorité duma jaar ci ñëw na fii na ma xaritu ministre des sports laa dama bëgg nga xoolal ma diggante match Sénégal ak Côte d'Ivoire ma ramli ko génne ko na ko Sénégal ba ba tey Côte d'Ivoire moo ko noot ne ko Côte d'Ivoire gii may gis mu ne ma naam ma ne ko dana yor départ muus mais arrivé gaynde lay lay amee jeex na mais lu bari kenn du ko wax laaj dégg bëgguma di fësal lu bari mais maa ngi lay waatal ci yàlla bi ma bind ne la du la wax luy dëñ alaaji dégg ñun ñu ngi sant yàlla xam nga maanaam doomu ñay kenn du ko jàngal rëy kenn du ko ñaanal rey lan nga koy ñaanal mooy gudd fan ndax rëy maa ko la man kenn du ma jàngal seet kenn du ma jàngal faj soxlaay jaam kenn du ma jàngal wax lu dul dëñ ndax soo maam xalifa ñes moo daan taxaw ci tànt na li ma yor dama koy jaay ku bëgg ñëwal ma jaay la ku bëggul baxal ñu ne ah xalifaa ngay ndamu de mu ne déedéet la in zakartum la asidannakum wa amma bi ni'mati rabbika fahdis mooy lan mooy tahaddusan bi ni'matil wahaabi bi rahmi an fil munkari murtaabi mooy lan mooy yàlla daf maa defal ay ay ay ngëñal waaye nag dafa war ne bu ma ko defalee ma sant ñu sant ko ko mooy lu suñ mbokki cantaakuñ naan dañuy cant baat booba fa la jógee ndax jox lekk nit ak cant la mhm. jaamu yàlla ak cant la mhm. digal nit lu baax ak cant la léegi nag nga ñëw ak man ci boo seetee ba pare fan nga jëm ak nit ka dégg sëriñ su bëri foofu la ñuy trompé nit ki ñuy ñaanal yàlla mhm. ñaan yàlla dafa am don uur boo ko bàyyee rate nga fa nga jëm soo bàyyi ba may jàngal benn xam-xam uh-huh. bu ñuy wax batuta dafa am àll bu ñu demoon mu ma koy jàngal uh-huh. mu ne ma si xam-xam bi uh-huh. duñ ko jàngale ci kër ci àll lañ koy jàngalee waaye lu baax ci lu bonañ ci man nga cee tiim lit léegi ray ko billaahi wallaahi tallaahi mala mala. mala mën naa dee nga fekk fa nga toog ut bant gattax. gattax mooy bant góobu mboq. wala bant góobu dugub. nga jël bant ba xool diggante baat ba ak fa ak maanaam ak fa ñuy put ga fa ñuy rayee. Mhm. nga teg ko ca di jet bam ne ñoo kejjug. billahi lazi laa ilaaha illaa wa xayru waaye dañ ne boo ko defee at ma nga ko def yow ma ko def yow ma ko yow ma ko def doo ko fekkee waat yow. mooy xam-xam boobu ma lay wax mhm. moo tax. parfois nit day jékki-jékki ne waay sëñ bi xanaa moo leen dara ci Macky Sall ñu ne leen kenn du ko yónnee yàkkamti ko yàlla mag moo xam ne boo ko yónnee bàyyi ko boppam moom mooy xool lu ko neex mu koy doxee. Macky am na gàllaaj nag. Macky amul gàllaaj bu amoon gàllaaj du du. Ah, du mais am gàllaaj weesu tëj Sonko te dëkk bi yëngul. dimbale ma Sall dimbal ma ma ah, la wax. <laughs> mais sëñ bi xamul problème waa ñu génn foofu sëñ bi foofu bu ñu fa insisté émission mën naa yàqu ñu ñëw ci garab yi tey dama gis garab goo xamante nii dafa mel ni ay doñu nga ko def def ko ci genre benn euh, pot nañ ci leeral ci kanam ma duggaat yow ci Sonko parce que bëgguma yàq sa émission tamit te tey li ma fi andi mooy njariñ ndax gëj ngaa génn wax askan wi sëñ bi lii leen moo ko tax a jóg dégg daaj danga may tooñ toujours danga may tooñ toujours te baaxal di ma tooñ baaxal di ma tooñ dégg daaj baaxal di ma tooñ li tax nga may tooñ mooy wax naa la sama kër gi ordre yi fiy dox man su fekkee dictature la maa tey dictature laa ci Sonko sama kër gii maa ko moom baal dafa tudd tuur woo xam ne boo ko fi tuddee xol bu naqadi laay fanaanoo ba bët set baal ma loolu. dëkk pale. dëkkul pale dañ koo abal pale mooy du fa jug dëkk mooy loo moom. ah waaw sa kër sa kër ga nga moom. def ko sa turu kër yaa ko moom. waaye foo nit luwee ñu luwee ko ko boroom kër ga boo ko génnee du génn léegi ñun ñooy borom kër gi ñun Sénégal génn ko mooy du génn ba pare toog léew fag lañ gisee nit ku taxaw ñëw ne maa ab gan gu ñëw cib kër tàggoo ne maa ngi ñibbi ñu gungele ba ci buntu kër ga nga dawaat ci kër gi naan eh dafa leen dàngal seen buntu seen buntu yi bu baax ah c'est Sall mooy gan gi gan gi moomul réew mi dañ ko koo dénkoon doyal nañ lii ku ko ko waxul ragal nga tàppet nga moomut ñu coloniser wut ñu jëndut ñu jurut ñu ñu jox ko réew mi ci njëkk ak teranga mu pare ne du du de passation de service ni ko ko Ablaye Wade defalee oon Ablaye Wade mooy gor mooy garmi mooy njiit lu mat njiit keroog ba ko alaaji baara ooyee ne ko baal lépp bu laal Macky Sall ah barke alquraanu karim yi dafa am dafa am jikko yoo xam ne bu nekkee ci yow lépp loo defaat ci ñaawteef sax nit ñu duñ ko fàtte jërëjëf Ablaye Wade grandeur bu mat sëkk la donte waa parti def nañ lu salté loo xam ne sénégalais yëpp génn nañ ci ñoom ndax jaay giñ jaay réew mi ngir alalu adduna waaye Abdoulaye Wade mas naa def grandeur boo xam ne moo tax Sénégal am jàmm. ñëwal ci sa garab yi garab gii yaakaar naa garab gu am solo la. danaa wax yi waaye bala maa waxati bala maa waxati garab yi boo bëggee waxtaan wi continuer buñ duggatee ci politique bu ma waxal tur bu ma waxal tudd fii nii. ki ñu abal pale baal tur ko dëkk pale bu ñu indil jafe-jafe dégg jafe-jafe yu ñu dund doy na sëkk lii kaaraange la. kaaraange saabu bi képp koo xam ne yaa ngi koy sangoo. waaw képp la pexel. waaw billaahi lazi laa ilaaha illaa wa xayruhu dana uy ji mag ña. képp cat wala bët. wala làmmiñ wala yéere bu bon bu nar a jëm ci kaw yàlla dana ko def rajo mooy dana ko tourné waat delloo delloo ko ca kala ko yéene ndax innamal ahmaalu binniyaatin lañ ko liggéeyee mhm. mooy jëf yëpp yéene la ca lañ ko liggéeye mhm. liggéeye ko ci ñetti saabu yu bokkul xam nga yan ak yàlla dama koo liggéeyee ci xay mi ngi nii bii saabu xay la bu sax ci armel ci lañ ko liggéeyee uh-huh. bii nekk uh-huh. fuuf uh-huh. di raxas yaram di ubbi doomu aadama bii ñu liggéeyee ko ci was wasoor bu sax fu tandee te ko liggéeyee ñett yi la boole jox la ko xay bi ngay sangoo ñett fan jam ci ñett puso gas suul was wasoor bi nga euh, nga sangoo ko ba mu jeex mooy fuuf bi was-wasoor bi nga sangoo ko ba mu jeex lépp loo uti am ko képp ku la ut si yàlla ëlbati ko ko alaaji dëgg ci réewam kaaraange lañ toll réew moo xam ne mars 2021 ba léegi lañ fi ray ci ay gone kenn xamul nuñ toll ay nit ñu fiy dee comme deewu kanaara kenn xamul nuñ toll lu nit lijjant du ko am kenn xamul nuñ toll ña am ñi ngi gën di ñàkk ñadoon doon ñàkk di gën di ñàkk lii nag bu fekkee dafa àgg cim réew ñi man nañ dimbale ñu mënut dëgg man ñaan yàlla yii may def damay wax lu leer mayewuma saraxewuma neexalewuma li ma yor dama koo man man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku gëm ñëwal ku ku gëmut c'est ton affaire ba may jàng ji ñu ñu leen solal ñoom ay cravate seen yaay di leen jox ay mburu ak sama baay def maa gedd jël ma yóbbu ma daara gedd ma lu mat fukki at ak ñaar gisuma sama ndey gisuma sama baay di wër xam-xam ba am xam-xam ñëw di foyee xam-xam képp koo gis mu ne ci internet bi di foyee xam-xam di wax da ko sudut noonu di wax ñu ko yóbbu ay var di fen di kàcci kooku nekkul seriñ courtier la maa ko wax seriñ doo foyee sa kaddu ab sëriñ doo foyee sa kaddu ab sëriñ doo nekk comédien ab sëriñ doo def lu ñor nga wax lu ñorul nga wax ab sëriñ du du du indi foog naa for naa fii for naa fële ab sëriñ li mu war di def mooy wax xulil xaq walaw kaana moran wax ci aqulaayi taalaam wax liy jagal réew mi wax li enrage population bi wax li li torturé bi ñuy teg population bi wax ci diggante bi ak yàllaam ñu jàll ci xam-xam alaaj dégg xam-xam bokk na ci li nga xam mooy wàllum nopp suñ seex góor ak jigéen dañuy sëy ku góor ke bëgg ku jigéen bañ léegi ku jigéen bu bëggee ku góor ka bëgg ko wala ku góor ka bëgg ku jigéen ka bëgg ko ban nopp moo gën a gaaw ci boole nopp gi gii moo gën a gaaw ci boole. am na ku ne bitim réew. nekkul fii. mu demee bitim réew ka mu bëgg nekk fi senegal wala yow nga nekk Sénégal ka nga nekk ka nga bëgg nekk bitim réew. kii dañuy ut wenn xeer woo xam ne ñoo koy leb ci àll bi lay xam. ci ron dimbu lay gën di tàbbi moom xeer woowee. suñ ko utee juróom-ñaari xeer lay doon ñu liggéey ko ci diir juróom-ñaari fan. suñ toogee ba suuf sedd ñu oo turu kooka jat ya ñuy jat jàng ko ca xeer wa. xëcc ba mu baax ñu dóor ca kaw balaa xeer yi wadd dugg suñ biir kër dañuy tiire rek si buntu kër gi la ñuy toll tiire tëj buntu bi dugg buñ ko defee juróom ñaare fan billahi la si laa ilaha illa huwa lépp képp koo xam ni defal nañ la ko gisoo ñoom delloo salal alal alaa ji dégg man déggoo ma ne la maanaam damaa sant yàlla ci ñaan yàlla parce que dañ ma cee tàggat yar ma ci xam nga li mbëri naan man xaalisu mbër lañ ma ngéntee mënumaa ñàkk mbëri bëree mm-hmm. man xaalisu ñaan yàlla lañ ma ngéntee suma suma baay dafa judd ci xaalisu ñaan yàlla baayam judd ci xaalisu ñaan yàlla man ma judd ci xaalisu ñaan yàlla te ñaan yàlla googee it amut lenn loo xam ne ni mas na nañu see jàmbat na na yéen ñii wala yéen lew nañu seen ñii wala yow Cheikh Tidiane Niass mii wala yow diw mii li nga waxoon amut wala li nga defoon amut alaaji dégg ñun suñu waxu daaw du uteeg suñu waxu ren mukk lu gën a gaaw ci andi wërsëg alal ku ko bëgg xaalis bu bëree bëree bëree bëri alaaji dégg laaj nga jafe tañ man ko lool te neexuluñ ci kenn kum neex ñëwal kum neexul bul ñëw am na ñaari façon yu ñuy yu ñuy joxee alal doomu aadama benn bi dafa tënku ci jaaro bii nga xam ne moom lañ wax jaaro lew nañu seen bi jaaro bii du ne n'importe qui lañ koy defal képp koo xam ne jox nañ la ko koo xam ne jox nañ la ko ba muy ñetti yoon incha allah bi xawlillahi wa quuti lépp loo sàkku am ko ci alal day indi wërsëg di indi bayre di indi kaaraange uh-huh. di indi protection di indi maanaam lépp loo xam ne ni des na des na maanaam euh, indi wërsëg uh-huh. dafa am ku ma oo fan yële benn tubaab la uh-huh. na dafa am benn xarit nigérien bu ma ko defaloon mais dafa gis ne kooku ni muy maanaam ni muy avancé dafa ëpp mu laaj ko sama numéro bëgg a wax ak man ma ne ko man mënu ma wax français xaaral ma jox sama secrétaire bi sama secrétaire bi wax ak moom ma laaj ko mu ne ce n'est pas cher ah maanaam si loolu loolu koo cher ma ne ko ah ndax sama secrétaire bi ne ko ndax lan mu ne ko parce que kii li ma gis affaire li ma gis jaaro bi maanaam jëriñ ko ci ci ci yéegu kaayam mhm. ci maanaam ci visibilité am ci patron bi di ko bëgg ci muy am amam ci kaaraangeem ëppal na ma ko billaahi wala watallaahi ma ne ko bu ko neexee nañ jëflante léegi mu xool te mhm. sens la ne ma bisimilah fal dinaa pour wax la ne la ñu weex ñi ñoo gën a gëm ñaan sax ñu ñuul ni te ñoom dañoo dañoo gëm seen aada ak seen lépp ba pare retour ñëwaat ci ñun kon ñun ñoo caaxaane li ñu am buñ caaxaane li ñu am li ñu am ñun Afrique lu ñu am ñun senegal kenn amu ko kenn amu ko laala wax guerre mondiale takkee fii la saafara woo Sénégal fii la saafara woo allah guerre guerre mag ñu baax ñi waaye soo maam xalifa de def na ci xasiida ne Sénégalul aqsa a naarul biladan jamihan mhm. mu ne Sénégal gu ndaw gii ñuy xeeb ëllëg moom la réew yëpp daw di leen ut si waaye Sénégal gii mooy réglé mboolem jafe-jafe réew mi fu fédéral di génnee rek actuellement nii Amérique Russie France extra extra daw di xëccoo suñu réew ba wax suñu élection mas nañoo wax suñu élection 2011 waxuñu woon suñu élection buñ ciy wax ren la maam Khalifa Niass waxoon dëkk na kon mag ñu baax ñi lépp lu ñu wax lu ma tabal xel baaxel la ku leen di fontoo da nga leen a xamut liñ suure ci réew mii liggéey ko ci réew mii billahi lazi laa ilaha illa wa xayruhu képp ku bëgg yàq Sénégal yaa yàqu ñu ñëw ci li nga xamante ni mbokk di leen fàttali ne numéro yi affiché mooy numéro sëriñ bi képp ku ko ci war dina ko jot ñu ñëw ci jàngoro yi xeetu faj yi ñii hémorroïde moo leen sonal ñii ndoxum siti mais ñii dañoo néew kattan ñii jabat yàq na seen àdduna yan ñooy saafara yi yii ma limal nii dëgg daaj bu fekkee lu jëm ci wàllu hémorroïde la ak ndoxu siti ak ballottement clinique bi daf a indil bii nga xam ne moom la ñu ooyee kaddu kër gi mhm. mais bii nag moom mooy jooni jooni mais bi ndoxu siti lay faj hémorroïde ballottement bu fekkee nag bu ñuy ooyee kaddu kër gi la kaddu kër gi nag maanaam képp ku leen koy jaay ku dul man waxul dëgg na leer fii moom mooy cabinet bi am na sëriñ su ko daan jël si fii ci man ma leen ko daan jox ñu ko daan joxe utal ko weneen tur woo xam ne weneen lakk la wu bokkul ak lakk wii waaye même firiwin la ah. boo ko firee ci olof ñu ne man maa leen ko jox ñii def ko ay bëteel ñii def ko ay sunguf ñii nangam du man na leer koo xam ne seetaanu ma improd gii may waxee numéro téléphone yi nekkul ci man yi improd tàppe du man na leer ku ko soxla nag maako am maa ko sañ maa koy joxe bii képp ku koy jëfandikoo da nga mën a jëflante ak soxna 30 minutes amul effet secondaire amul dara parce lépp ay sunguf ak ren la ak ay turu jinne ak ay ay alquran yuñ jat def ko ci ku ndoxum man yoom baaxut muy sperme kii moo koy traité ba mën a am doom ku yor lu gàtt wala nga yor lu tuuti wala lu dëgërul maanaam sidi di tàllalul kii moom lañ liggéeyee gerasu gëlëm ak karité ak ay mbir yu may bañ wax ngir ñu piraat ko képp ku koy diw ci sa sàkkar daf koy rëyal daf koy guddal mhm. daf koy dëgëral parce que nag képp da ngaa weddi alquran ndax lan ndax yàlla moo ne lépp def naa ko ci alquran maa farat naa fii kitaabin min shay'in kon nañ bàyyi xel loolu képp koo xam ne nag nekkoon voyage maanaam da ngaa woon ñibbisi wala nga am seet bu bees bu mel ne sama waajooje waaw bu fekkee loolee loolee am na jëlal li kii moom wax jooni jooni patriote yi di ko ooyee gat sa gat sa kii képp koo xam ni ñu koy jël nañ ma déglu lem neex na loolu waaye du képp ku ci jël ñaari kaas képp ku ci jël ñaari kaas boo al ko wala la nga yor bu mënta rees ñu baal ma ci kàddu gi too ñu ma la yaa tooñ sa bopp nit buñ koy dimbale ne dimbale boppam na yem fañ ko yem loo bu lay faj yemal fam loo benn kaasu ataaya bu ko ci weesu alaaji medun dégg daaj tooñ na benn jour benn paa nay leer laa ko jaay paa bi o oh, alaaji dégg daaj ne ko nuñ koy defee alaaji dégg daaj na ko jolu ko jël benn kaas nga joluloo ko nit lu ko lu la da ma ne yéen laay wax xool leen ma yéen ñi nga xam ne doyloo ngeen ma may jëflanteeg yéen te jëflanteeg yéen bi dëpp juróom-ñaari at uhuh. lenn la ndëmu ci uhuh. képp ku ma ko joxati uhuh. bul ci passé benn kaasu attaaya bul ci xër bul ci xër ba muy juróom-ñaari yoon bu fekkee nag koo xam ne dafa suukar lu ñuy wax jabet kii lañ koy traité ci diiru une semaine bu fekkee koo xam ne dafa yor lu wax cataracte mooy bët yu naqadi kooku kii lañ koy saafara kii lañ koo liggéeyee ci allahu nuuru samawati wal ard mooy liy dox ci leer uh-huh. képp koo xam ne yaa ngi koy tuufaayoo nañ la ko waxee day ñoral cataracte bi completement maanaam xolli ko nga am jàmm incha allah bu neex yàlla dëgg waaw wanoon naa la benn saabu waaye bii uh-huh. mooy saabu kaaraange kaaraange yi bu ñuul bii ngay gis kii uh-huh. dune moom porte kii sax moo ko war a sangoo gis nga Sénégal ñi gën a sonn mooy ñu am. parce que ki am. Mhm. du sóoraale boppam ba keroog muy ñàkkee bu ñàkkee nag lay wër ci sëriñ sëpp lii daloon na ma nangam nangam soog di gëm ñaan yàlla. Mhm. fekk ne la ko dal ñaan yàlla ko ko teg. fonku leen seen bopp. Mhm. yonent yàlla moom salaa salaam moo ñu gën a foor moo ñu gën liggéey nañ ko ba njabar ko ba jàpp ko. kuy wét ne sëriñ amut laajal yonent bi kuy sëriñam keroog boobee muy yàlla subhanahu wa taala kum yebal mooy jibril ne ko demal jàngal falaxi jàngal naasi aaya boo àgg fas fas na keccat te keku ñu génne ko ci teen nangam ñëw teg ko ci kanamam muy xeeñ loo xam ne moo gën a xasaw foos bu mabbu juróom-ñaar fukki at ca yàlla ne jug leen seen bopp uduuni astajib lakum uti leen ñaan ñaan leen mooma may leen kon dem leen ngeen ñaanlu ji ku leen gëm loo ñaan amut mi ci ñaan sëriñ képp ku ko yàpp bëccëg bu guddee nga baalu si ko àq sëriñ nag laa wax waxuma sëriñ ñantu de man de man man boog maa ko wax ci kaw képp ku ma yab bëccëg barke xalifi su guddi nga baalu si ma àq billahi wal kitaabi wa rabul kaaba ci lu wér lañ dëgg toog ci lasraar yu wér di zikar ay turu yu wér juddoo fu wér ba pare nag xam yàlla di ko xam le xam portoom ya baabul ilaahi yi ñu xam ko xam fañ koy jaar fa ñu jëlee soxla ya di faj soxlaay jaam ñi sëriñ naawal defal karaama bu ne ci àdduna te mënoo faj soxlaay jaam ñi doo tuus sëriñ bi ci jiitu mooy mën a faj soxlaay jaam bi ñëw ci yow boo ko mënul doo doo sëriñ sëriñ deuxième bi mooy mën a defar doomu adama sëriñ bu mën ta mën a defar doomu aadama na na def karaama gune du sëriñ maa ko wax bu fekkee nag koo xam ne daf na jotuma ci jaaro bi ndax jaaro dafa seer jaaro bi maye wut saraxe wut ku ko am am yu milliard uhuh. am million maa ko wax bul xam la waaye képp ku ko am am ay milliards am na loo xam ne it duñ ko wax ci tale boo bëggee alal nga contacté ñu ñu jël sa tur sa tur nday adat ko xool sa rawaxaan sa xudam ñu jëflante ci ñu aw ak yow ci yoon boo xam ne compte xaalis mooy sa métier. la ilaha illallah. Khalifa ko Adama Sène. waaw Khalifa mooy sama maam mooy kii ku ko wéddi rek dama lew na. Mhm. defal na ko Adama Sène laa wax. Mhm. defal na ko Alpha Thiam. Mhm. ku ku la dégg nga Alpha Thiam. moo defar Sidi Iyane Iyane Iyane Thiam. bi nga xam ne moo daan wax ci weeru koor gi Iyane Thiam mm-hmm. moo defar si Lamine Niass ak mboolem doomam laa wax mm-hmm. kooka ku ko sopp ba mu xëy feeñu la ci wu gént am na loo xam ne sax mënu ma ko wax nañ jàll euh, li ci jàll ak li ñuy jeexalee mooy dialogue bi sëñ bi bu ngeen bëggee seen candidat bokk faaw dialogue am alaaji dégg waaw am réew duñ ko yore ci tappale duñ ko yore ci caaxaan mm-hmm. duñ ko yoree ci ganaar sama ganaar deena nañ dialogue sama muus deena nañ bu buñ la jekkoo nga ne nañ dialogue boo jekkoo bu kilifa yi ne dialogue nga ne noono jotagut Macky Sall démb dafa wax ba wax maanaam fët yi Sénégal yi di yi doon wax kilifa diine moom mu mu pardonné ñu kilifa diine yi wax ne moom mooy fëtam te mboolem kilifa diine bu ne ci réew mi nañu jéggal na ma jéggal boog man ndax jàpp naa ne waxuñ mhm. Macky Sall dem moo leeral ne am na kilifa yoo xam ne. depuis boobaak léegi ñi ngi wax. Mm-hmm. kon war ñoo indi stabilité réew mi. yow am na kilifa yoo xam ne depuis mars 2021 ba léegi ñi ngi wax. 2021 2022 2023 2024 4 ans. nga toog ci pouvoir bi. Mm-hmm. di nas di nocc di def la neex di jàpp di tëj. say say say takk der say euh, nervi di ci mbedd mi di rey ay nit ay nit di dem ci géej gi yaa ngi dégg courant bi seer ceeb bi seer dund gi seer gasoil bi seer kenn mënul wax wuriyaam jàpp nañu di tëj jàpp kilifa yi euh, ku ne ku wax nga nangam la preuve Cheikh Béthio Thioune yaa ko jàpp tëj ko xajul ci gàccaay tooñ googu ba dem uji sangam sëñ Saliou Mbacké Sidi Lamine Niass dañ ko jàpp tooñ ko jox ko liberté provisoire di ko tooñ di ko tooñ ba xajul ci mille vingt 2024 am parce que bu ko fekkoon a wax bu fi bu waxee leneen mën naa xew mu dem uyu ji borom fekk bàyyi ba Khalifa Niass ak ñeneen ñuñ mën a wax ak ñu man a ci réew mi kon tey jii bu réew mi accès fii képp ku jëlul sa responsabilité wax ak Macky Sall naa fekk nga laa wax maa ko wax bu buy tëjee na ñëw tëj ma buy rayee na ñëw ray ma ma ne ku ra gis nga kuy kuy xotti ci kiiraayu yàlla yu guddi di jaamu yàlla di gis loo xam ne doomu aadama ju ko gis te sa fi dëgërut man ngaa uj sa borom boo jàkkaarloog Macky Sall ragal ko doo nit doo nit ñu bëri léegi ñu ñaan yàlla ñaan seen ñaan yàlla feeñut li ko waral mooy lekk alalu politique parce que alalu alalu impôt yi alalu néew gi doole yi alalu alalu euh, maanaam jirim yi nit ñuñ tooñ ñi mbooleem këyit yu ñu dajale yaa ngi dégg impôt yu ñuy yokku kër yi ñuy yokku ciment yi ñuy yokk ak loolu yooyu yëpp ñu dajale ko ñëw jox ko président dugal ko ci keesu nguur ñu ne laa woo mooy caisse noire luy caisse noire mooy jubati ñu jël président coppatee ci loola dem jox kilifa ga kilifa gi téye ko xool diggante moom ak borom moom dëgg kon bu ñaane du am bu ñaane du am ñoo ko wax maa ko wax gis nga ku mel ni Cheikh Sëñ Saliou Mbacké radiyallahu anhu dafa mas a wax sama benn waajur wax ju am ba ma jëloo def ma ne sama sama maam bi jur sama baay muy El baaba Babacar Niass moom moomoon jaaga. sëñ Saliou moom xel xom mooy xel xom jaaga ngay dégg. ñoom ñaar daawuñ toog ñaari fan yuñ gisante wut laa wax. sëñ Cheikh Saliou sëñ Moustapha Saliou ñu may dégg. duñ toog ñaari fan yuñ daawul gisante sëñ Saliou ñëw na gane ko gane si ko une semaine Kaolack. kon xam naa li may wax. mu nekk ñu nekkoon ay xarit benn bakkan. moo wax sama benn magu wayjur ne ko bu ngeen bëggee ñaan muy nangu daw leen alalu politiciens yi ndax dañ leen a jaxaseeg seen borom dëjale leen dëjale leen ak seen i morom seen i morom mooy ñan mooy population bi respecté tuñu bu baax bu ñu waxee ñu ne sëriñ si nangam nii nangam lu waral loola mooy jaxase nañu ak suñ moroom yi jaxase suñ borom mooy lan mooy buñ ne allahuma yàlla du mooyu parce lan parce que bala ngaa ñaan borom bi joxal borom joxal jaam jaam ñi liñ moom nga dem ci borom jaam ñi mu soog di la jox li nga moom nañ moytu pour yenn politiciens yi nga xam ne ay naafeq lañ dañuy yàq dañuy tas président Ousmane Sonko nag laay wax fii laa koy waxee mu koy dégg bépp décision bu mu mës a jël ànd naa ceeg moom mais heure bu jëlee te du ko jël ba laa yomi din nag waaye heure bu jëlee décision dem ci dialogue wala toog ak Macky Sall ma ba ko maa ko wax maa ko wax dévétissement mais Sonko bu bëggee jàmm war a toog ak Sall waaye alaaj dëgg yow yow yow yow yow léegi lan may lay laaj lan mooy sa problème léegi da ngaa bëgg wax ñun bëgguñ jàmm. ah mais Macky woote na dialogue yéen di ngeen da war a wuyu si. pourquoi ñu war a wuyu si laa la bëgg a laaj. jàmm Sénégal askan wi dee na. waaye alaaj dëgg askan wi dee ñun ñoo leen rey damay askan bi dee ñun ñoo leen rey ñun. mais kan moo koy rey. kan moo koy rey nekkul ki dëkk pale de. Medoune. coupé sa caméra bi wala mu laaj ma lu ma neex bi mooy ñaari yoon du ñett. coupé sa caméra bi wala mu laaj ma lu ma neex. ah mais loolu bëgg ma laaj la ko tamit. xam nga ñiy indi fitna ñun yoruñ takk der yoruñ yoruñ yoruñ mais yéen yor xeer yi. xeer mooy raye. ah xeer mën na gaañaate. lu tax sànq nga ne tiire xeer. mais policier boobu na ngeen ko def Thiès nag loolu est ce que c'est normal. loolu la takk der ñan ñoo ko def ñun patriote yi. ah mais xale yi yéen a influencé nit ñi. alaaji dégg. ah mais ku influencé ba mu ñetti yoon. waaw alaaji dégg ba muy ñeenti yoon ba muy juróom juróom benn juróom ñaar nongoloo way na lool de déglu rek man bu man du ma jenn sëriñ si ngay wax ay nongoloo faatuloo man kilifa laa gu mag nekk kilifa diine waxal ak man ci lii wala ñu génn ci lee maa man man mike wu ma théâtre wu maa ngi jégalu xam nga lu ma lay xamal ba mi ñetti yoon fii maa ñi rey nit ñi ñooy ñu yor balu fetal yi ah? waaw ñi rey nit ñi ñooy ñu yor balu fetal yi mhm. nervi yi génn ci mbedd mi ñu koy gis France 24 di ko wane yeneen télé yëpp ñu koy gis wax ci loolu nañ wax ci dundu seer gi nañu wax ci Macky Sall otage gi mu jàpp waaw man li ma li sama problème sax man man man man Macky man man mooy kan ba Sénégal ñemewuñ ko man man daal man daal vraiment seen barke alquran karim des na tuuti ma ba wax. ma ba nekk di wax ci affaire politique de maam 2019 laa commencé xamal senegal kan mooy Sonko ñuy raam di raam di raam ba tey Sénégal soog di toog toll ci Ousmane Sonko waxoon nañu ko Ousmane Sonko nee na leen baadooloo kenn du ko teg ci njoowaan kenn du ko teg ci njowaan am na koy waxal de ku ko réew mii képp kuñ ko dénk mhm. dénkeelu ko ci anam bu rafet mhm. nangoo ko delloo dugal sa bopp foofu ku ko nangoo delloo nag doo baadoolo kon da nga da sa géej gi ku moom waaye sama dama ne la géej gi kay neena na tàng ci yaram ab jàmbur géej gi nee na tàng ci yaram ab jàmbur laa la wax mhm. xam nga lu ma lay xamal dégg man suma juróom-ñaari maam amul ragal nay leer ma tëjee foofu sama juróom-ñaari maam amul ragal sëriñ Ibrahima Thiam Kellel mooy sama maam ca Thiamène Waalo mm-hmm. kum jàngalut fii ci réew mi mm-hmm. jàngal na kala jàngal mm-hmm. nay leer kum jàngalut ci réew mi jàngal na kala jàngal Ibrahima Thiam Kellel moomu mooy nijaay Alaaji Abdoulaye Niass yëkkati doomam du ñu wax Aminata Thiam may ko mam Khalifa Niass mu am ca taawam ba Khalifa Niass ba ko koy may ne ko Abdou mu ne naam mu ne ko mu ne ko yónantu yàlla ma salaa salaam seet si na ma biig si guddi. ne ma maanaam la ñuy wax photocopier mhm. moom la soxla ci yow. Mhm. moo tax mu ne ma naa jël euh, sama sa nday Aminata mii. jox la ko. Mhm. mu am ca Khalifa Niass Khalifa juddu di copier ba rasulillahi réew mi ni mu toll moo fi moo fi tudd Mouhamad baayam tudd Abdallahi yaayam tudd Amina mu juddu altine gaañu altine moom kese ko am. moom kase laa la wax. moo ko am. Mm-hmm. yonti yàlla Muhammad kuy maamam Ibrahim. Ibrahim alayhi salaam yonti yàlla Ibrahim. maam xalifa kuy maamam Ibrahima ci am kële. kon dikk na min ka ilayka la. waaw min ka ilayka wax. waaw yonti yàlla Muhammad mm-hmm. am na saxaaba bu wax Zayd. waaw moom la waxoon ne ko maanaam yaay jant maanaam yaay jant saxaaba yi maanaam li nga war a leeral bari na ci waxin. kan mooy jantam xalifa ñes mooy Zeyid Sidi Lamine ñes kon maam xalifa lim nuroog rasulilah kenn xamu nu mu toll waaye loolu taxu ñu jug parce que góor gi bu ñuy wax ci moom cofeel gi ñu am ci moom lim ñu defal dafa jéggi dayo parce que imagine toi alaa ji dégg soxla lum rëy rëy bu ma àggee jàkkaarloog moom ci xabroom bi ne ko diw ba muy ñetti yoon maa ngi ko xamee bañ téye Ousmane Sonko maa ngi soog di wax wax ji dama jooy yëkkat lu ma mësul def ngir ngir ngir sopp ko lool ngir am ci moom ñëwantu lool ngir xam fañ koy yóbbu di këram sénégalais yi seetaan ko booba ndek yàlla mooy karim dégg xam nga lu yàlla def foofu yàlla mooy karim yàlla dafa jël ba maam yàlla ba bokkaale la dégg bu ko waxati nañu wax yàlla maam mooy ku am doom ñu koy wax maam kon lam yulit wala mu yulat da nga koy dëggal lam yelit wala mu yulat wala mu yakul lahu ko alxuraan a ko dëggal te alxuraan lu ma wax dëggal leer na dama doon jàngale rek ab jàngale la jeex na tàkk ab jàngale la nit ñi da nga jàngal kon yàlla mbokk yi ñu fàttaliku ne amul doom amul papa amul nijaay moom yàlla rek la maam yàlla dinañ ko bàyyi moom kase te jekkut jaaduwut benn julit di xalaat fam juddoo wala fam yaroo wala ku ko yar wala lu ko sabab mhm. yow xamal ne moo la sos te kenn sosu ko rek bu lijjanti leneen lu dul loolu mais pour wax la bi ma demee ci xabru xalifa ñes wax ci sama xel jàng lim bañ koy jox ngir mu nangu soxlaay jaam ñi du ma ko wax ci kaw ma àgg sama kër ne ba ba tëdd billaahi la si laa ilaha illa wa xayruhu ma gént ko mu ne ma cheikh cheikh ba muy ñetti yoon ci haatif moom xalifa ñes ne ma fa inna ma usri yusran inna maal usri yusran gannaaw jafe-jafe jàpp na rek mooy dëkk dalal dalal dalal te bul ci def bul ci wax ñun danañ atte billaahi wallahi wa tallaahi lii la maam xalifa wax ci gént oo benn responsabilité politique c'est bu mag Pastef ne ko Ousmane Sonko ci kaso gii ci la léppam di réglé woo ci la léppam di réglé woo nañ seetaan ñu ba ñu bañoog Macky ñu toog ndeke kaso googee dem gam ca dem mooy tax président tiit ba waa kala bañoon démb taxaw xeex def lu ne ne doo bokk tey bu ne bëggaat na la ngir nga bokk ci élection yi war nañ koo gëm dañuy laaj rek ci xel mu sell la lu tax a jug dialogue bi damaa bëgg ñi rakala yi nangam ñëpp bokkaat yow yaay war nañoo dem ñun léegi nangu nañ xam nga lu ñuy xamal Macky Sall ñun bëggatuñ Ousmane Sonko nekk suñ candidat <coughs> ñoo jaxas ñun waa Pastef mm-hmm. Ousmane Sonko kàddoom mooy suñ président kàddoom mooy jomaay tànnal nañu jomaay mm-hmm. ñun léegi xamatuñ Sonko jomaay lañ xam nay leer Ousmane comme ne kii la kooka la comme ne du kii du kii dialoguñ dialogaanuñ usmaan Sonko ñëwut dialogue jomaay ñëwut dialogue Cheikh ñas ñëwut dialogue El Malick ñëwut dialogue Abass Fall ñëwut dialogue Birame Souleye nay leer gis nga ñun duñ say xar yoo xam ne heure boo jaaxlee nañu kaa ñu waxtaan heure boo jekkoo jàpp jekkaluñu duñ ñooñu na leer fula nag ak fayda borom moo koy utal boppam. tuura se tuura doy na. doy na Sénégal nañ jël seen rêve nañ téye liñ moom. parce que nag ab réew démocratie moo koy doxal. ab réew yërmande moo koy doxal. ab réew nangul kilifa yi moo koy doxal. ab réew yërëm société bi ak askan bi moo koy doxal. Macky Sall delloo sil sa xel. delloo sil sa xel te xam ne réew mi ku la bañ ñëw fi waaye ku fi uut ak yow moo fi ne. ñun 2012 ñoo bokkoon ne yow xalaat fal la 2019 bokkatuñoo yow xalaat 2024 bokkatuñoo yow xalaat parce que gis nañu changement bi war naa gën a gaaw yërmande gi war naa gën a bëri dund bi war naa gën a yomb nit ñi tukki amuñ këyit pour lan suñ cause laay ci àll bi ñu war a liggéey liggéeyuñ ñu war a jaxasoo tubaab yi yombale leen facilité leen pour ñu mën a am këyit di ñëw seen njaboot bari na tubaab yi buñ pour ñëw fii c'est facile ñun pour ñu dem c'est difficile loolu pour lan mm-hmm. loolu lañ ne Ousmane Sonko gis ma ne billaahi wallaahi watallaahi 2024 képp koo xam ne votel nga jomaay fay o cause ndigalu Ousmane Sonko ëllëg yowmal qiyaam boo deexee 2024 doo bokk suñu yàlla di xisaab naan la lu tax ngeen votel diw doo ci bokk barke alquranul karim patriote dëgg mooy xam li ma wax ñam leen Sonko bëgg leen Sonko xam leen Sonko xam ko dafa war bëgg ko dafa war votel ko dafa war topp ay kaaram dafa war parce que lépp lu suñu mag ñi indi woon tànk woowee laaw jaxasewut diine jaxasewut état jaxasewut population bi. Mhm. indi lañu dëgg te dëgg jooja nag ñoo dem ba ñi ko doon bañ toog ci télé di ko nangul tey kon am na lu xew. Euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. alaaji dégg. fi may tàggatoo mooy jëli leen carte d'identité yi. Mhm. ci préfecture yi. jërë jërëjëf Modou Modou yi. Mhm. suñ moodu Modou yi suñ mbokki Modou Modou yi ci diaspora bi yëpp. gis nañ seen taxawaay réew dëkk dëkk ni mu soree ngeen yëg météo dem jëli seen carte d'identité yi ngir lan ngir jëlee la fi nekk jërë ngeen jëf. am na ñu fi toogoon nag ne yéen du ngeen dara. Mm-hmm. benn parti. ndax pour pour pourcentage bu ndaw ngeen. Mm-hmm. pourcentage bu ndaw boobu. moom noonu la leen Pastef gën a téye noonu la leen Pastef gën a taxawoo noonu la leen Pastef gën a bëggee. Mm-hmm. parce que la moyenne soos ñun. suñ bëgg-bëgg. du lenn lu dul yéen ñi dem ci bitim réew ngeen gaaw ñëw gis seen yaay yi gis seen baay yi gis seen soxna yi taxawal ci réew mi dara lu fi baax yéen a ko fi dugal lu fi baax yéen a ko fi dugal laa wax yéenay dem ci réew jàmbur liggéey ñëw investir ci seen réew loolu la ñuy wër ci patriotisme bu leen tontu bu leen faale continuer leen ci combat bi ñu ne ci réew mi xale yi nañ taxaw beneen taxawaay te xam ne Macky Sall bawut de bawut nuruwul ku ba ba babalu wut kum pince lay wër wala kum dugal wala kum jaxasee nangam dégg naa nag mu naan jaxase nañ ko international bi nangam nangam nangam fii ku fi tëggee ni tama ñu tëggee la ñaari boor ku fi bindoo ni tama ñu parce que nag bu yàgg lañ bañoon yëf yi agsi fii ñu lay dànkaafu di wax di wax di wax di wax ba bañ gëm loolu ne la jëlal Sonko tëj ko yaa ko tëj yaa koy tijji point final ñun duñu chantage duñ jël pistole teg suñu bopp nañu kaay leen ngeen waxtaan duñ wax li ngeen bëgg far fors li askan bi bëgg tam méngoog dëgg ci la ñuy dox lu doxul ci dëgg doxuñ ca képp koo xam ne nag sa aajo narta faju boo yoroon ay milliards nar a jëm ci man li xaalis neex neex neex yal na la yàlla ëlbati ba boo ma seetaan képp ko sa aajo nar a faju nga yor dërëm kese yàlla nar laa dimbale nga yëkkat sa téléphone oo ma jot ma wala nga jot sama secrétaire saa yu nar naa faju parce que heure bu ma jógee 3 heures du matin li may njëkk ñaan yàlla mooy loolu ku aajoom nar a bu ma xam ku sa aajo nar faju yàlla nga ma booleeg moom ma am ca ndam am ca ngërëmal suñu borom parce que ñun ñaan yàlla utuñ ci privilège utuñ ci alal utuñ ci nangam la preuve mooy ñun suñ ñaan yàlla booy xool léegi maanaam waxatuñ ci sax li ëpp lu ñuy wax mooy sensibiliser ndaw ñi xamal leen projet bi xamal leen réew mi xamal leen nangam waaye lii nag yoon la ñu ci dimbali parce que bu ñu ko defee ëllëg yëmal xeem yàlla dañuy duma parce que ñi man bu ñu waxul rek ñi mënut yàq yàq tool bi ñi man buñ bayut ñi mënut yàq tool bi maanaam te tool bi dootul naat te képp ku fa duggati ñu jaawal la ak yàqkat yi kon képp ku man da nga def sa devoir dimbali ñu mënut maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Ousmane Sonko fa mu nekk borom borom euh, barrière ba ca Cap Manuel ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla taxawu yàlla xaar ko yàlla gën koo saxal ci dëgg. gën ko cee xaar ak Bassirou Diomaye fay ak mbooleem détenu politique yi. Macky Sall bu la neexee gën a la tëjaat kaso gi bu la neexee gën ñoo santaas bu la neexee defal lu la neex waaye ñun duñ say noon say noon mooy tubaab yee nga jo nga def mbokk ñun duñ say noon ñun ñooy say mbokk ñoo yor carte d'identité bi nga yor ñoo yor carte électeur bi la far kon respecté ñu ñu respecté la jërëjëf aca mbokk yi gis ngeen waxtaan wu am solo wi dafa maam Khalifa Niass waxtaan tey muy Serigne Cheikh Tidiane Niass mu nekkoon waxtaan woo xamante ni ay leeral ko jëmale ci li xew ci dëkkan nekkoon waxtaan woo xamante ni euh, li loxo xam ne benn bopp la kenn mënu koo euh, xar ñaar ay ci kon képp ku ko ci woo rek di nga ko jot gëj naa génn nag mais tey bi mu génnee yi xam ngeen ne waxaate na xam-xam baal gaarwaale yi may ma gaaruwaale gaaruwaale ba ba loolu nga may def dama wax rek léegi naka ngay tëye naan naan naan kenn mënu ko xar bopp ñaar ñun ñooy xar bopp yu ñaar de xam waxal li xew ci réew mi taxa parce que neel réew mi kenn mënu koo yàq jalaguñ nañ dem élection suñu dat lañ soxla nañu jox suñu dat waaye nga tëye suñu dat men da du saw data du saw dat suñ dat la ah dat wi suñ dat la ñoo ko moom ñun askan bi nañu jox suñ dat xam nga lu ma lay xamal boo mënta tëj simple neel wa salaamaaleykum wa rahmatullahi bu fi nekk di wax ay ki fi bëgg xar bopp ñaar xam nga baal di ma gaaruwaale nag foofu laa yem kon mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci daraje Muhammad Rasulullah